président ferme ñaar mi ngi noonu yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy déglu xaar xaar xaar avocat. waxal lancé naa ah waxal lancé naa. jam nga jàngat mane waxuma arrêté tuuti waxuma arrêté tuuti beaucoup de choses dans ce pays yoo xam na ñàkk vraiment ma justice je félicite l'état Sénégal on est fiers de la man dama ko jot. di gërëm see Ahmadou Bamba Khadim Rassoul depuis 2021 ba fi may wax ak yow ku ma mës a dégg dama naan la dossier bi amul viol na ma ndam du ma dugg si loo xamante ni aw ma si xam-xam ma si dara mooy a wax ni dossier bi tey siis bi nee na dossier bi amul viol ak tëtëgg na ko si loolu nee na li mu koy toppee nag jàpp naa ne affaire caaxaan la parce que nee na de comme li nga xamul procureur mujj sakku loolu si lañ ko tëj deux cent mook Ndeye Khady deux cent de ferme mais tey ku ne xam na ne bis bi tamit dafa amaat leneen que man mii di wax ak yéen tey la woon sama procès boo xam Macky Sall bi ma ko waxee loolu ma waxoon ñu ne dama ko afa def la tey la ma doon atti fils tribunal Samb fi nga xamante mooy euh, euh, fi nga xamante mooy euh, droit bi ñëwee fils daal war a atte mais mun ñu ma atte te jotuma convocation mun ñu ma atte aussi jot te dinduma sax malaanu kiiraay moo tax sama ñu renvoyé de six souliers uh-huh. mais li may wax askan wi nañu gën a xam ni nañu sant yàlla te gën a doyloo suñu borom parce que yàlla rek moo fi nekk parce que lii seen dossier complot dossier politique bëggoon nañu yàq deram askan wi yëpp tey xam na ni dossier Ousmane Sonko amul viol kon na sant yàlla na sant ay waajuram njaboot gi yëpp aussi nañu bàyyi xel ni Ousmane Sonko la bul tuumaal ci affaire viol dara amu si moom loolu la wax ni voilà mi ngi noonu dégg ngeen ko euh, moom euh, honorable député Abdou Mbacké Bara Dolly kàddu yi nga xam ne en tout cas yëkkati na ko euh, moom mi ngi xam le ni kii di Ousmane Sonko li ñu ko doon toppee en tout cas muy viol léegi juge bi nee na dossier bi daal viol amu ci mais malgré tout ça li nga xam ne moom la procureur bi doon sàkku ci lañ condamné ci euh, loolu ci euh, deux ans de prison ferme loo xamante ni si ni moom la ñu daan ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko ak ki nga xam ni effectivement moom mooy euh, kii di Ndeye Khady Ndiaye bi nga xam ne elle est enceinte ba toll ci huit mois mais dossier bi ba mu amee ak léegi mel ëpp na deux ans kon yaakaar naa xëy na mën nañ ko a tëdd mais de toute façon moom Ousmane Sonko condamnation boo xam ne xëy noonu situation boo xam ne it euh, jot nañu ko dal di wax tout à l'heure mu di Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane noonu euh, ñu xool rek euh, fu ñu positionné wu bu baax a baax a baax yow boo jëlee dugal ma ti avant <laughs>